kenn ci doomu dëkk bi bu doon dund fële ci itali euh, bàyyi ko ci itali juróom benn fan ci weer bii ñu nekk muy weeru mars dal di jël roppalaan bu ñuy wax Royal Air Maroc mu jóge Italie jaar Maroc bésu juróom benn fan ci weeru mars bi mu jaaree Maroc escale fa ñu contrôlé ko saytu yaramam mais amul woon feebar bi maanaam feebar bi tàmbaliwul woon fës ci yaramam donc mu jall ñew senegal ak sifi fi ci guddik juroom benn fan ak tambalik juroom ñaari fan ci wéru mars bi mu Senegal senegal aussi ñu saytu yaramam ci aéroport Blaise Diagne gis ne yaramam amul benn màndarga buy tax ñu njort ne am na feebar bi ci kaw loolu le génn aéroport bi jël taxi ñëw Touba bi mu ñëwee Touba mu ngi fi aksi besu juróom-ñaari fan ci weeru mars bi bi mu fi agsee itam xam naa coono tukki bi jàpp ko mu toog këram tëdd fa nam fa tëdde nag dafa dem ba mu am ñaari fan ci ginnaaw bi mu fi agsee le neuf donc mu tàmbali di yëg ci yaramam tàngoor ak sëqët bu wow ak yaram buy tàng ak yaram buy metti mu mel ne coono da ko dugg ak grippe ci kaw loolu la xëy bërsetu fukki fan ci weeru mars bi ñëw ci kër docteur bi mu accès ci kër docteur comme kër docteur ñu ngi doon saytu ak di seet di fexe di def li ñuy wax surveillance bi ñu ko gisee ci saasi rek ñu njort ne moom dafa indaale feebar bi ci kaw loolu lañ ko defalee ay analyse wu deret jël deretam yóbbu ko fële ci institut Pasteur biñ ko yóbboo ci institut Pasteur bésu fukki fan ci weeru mars ca ëllëg sa le 11 mars muy fukki fan ak benn institut Pasteur tontuñu ne ñu malade boobu ngeen ñu yónnee woon ay analyse dafa am feebar bi ñuy wax coronavirus kon lu jiitu lool nag ñun jëloon nañ suñuy matuwaay ndax xamoon nañ ne feebar bi yàgg-yàgg dina agsi ndax loo xam ne day law ci réew yëpp te Touba nekk réew euh, dëkk boo xam ne dem ak dikk bi dafa bëri ba taxoon ñun ñu jël suñuy matuwaay bi mu bi ñu gisee ni njort nañ ko ci moom ñu dugal ko ci saal boo xam ne moom rek moo fay fanaan am jumtukaay yi war yëpp pour mu bañ a génn saal bi ba tax docteur yi di ko mën di fekk foofu di ko faj ci kaw loolu itam ci la ñu euh, dem saytuwaa këram seet ña fa nekk ñëpp xool lim bi jël seeni tur ak seeni at ak seen ak ni ñu dëkkee xool seen dëkkuwaay ba pare euh, digal leen ñu toog ci kër gi bañ a génn ngir bañ a euh, génn di wasaare feebar bi ak itam ñu toog pour ñu saytu seen yaram ci diggante ba ñu gisee feebar bi ci seen waajur ba ba muy am fukki fan ak ñeent donc ci kaw loolu lañu def ñaari fan ginnaaw bi ñu gisee cas njëkk bi ñu gis ne soxnaam dafa tàmbali di am Euh, feebar bi di am màndargay feebar bi bi ñu defee ay analyse ñu gis itam ne moom itam dafa am feebar bi ñu continuer di càmbar ñi nga xam ne ñoom la dëkkal nekk ay njabootam ak ñi mu dëkkal biñ ko càmbaree ba bésu tey bi fii ma leen di wax mu am juróom benn yoo xam ne dañu gis ne dafa mel ni dañu am feebar bi ñu daal di jël defal leen ay analyse bi ñu defee analyse yi ñu gis ne juróom ci ñoom dañu am feebar bi kon muy juróomi nit yoo xam ne dañu ñëw dolliku ci ka nga xam ne moo ko njëkk am te ñoo ñëpp bokk dëkk ci benn kër donc loolu ma koy leeral ndax dañu dégg ci réseau sociaux yi ak ci presse bi ñuy wax ne feebar bi dafa tasaaroo Touba ak quartier yooyu may xamal la ne feebar bi fii ci Touba ci benn kër lañ ko nemmeeku te ñi mu dal ñëpp bañ gis ko ci ñoom ci kër googu la ñu jógee te ñooñu itam ba ñu leen gisee ba léegi ñu ngi leen di taxawu te ki nga xam ne moo ko njëkk a am ba mu jógee Italie ba ñëw Touba demul demul demul fële ci Poroxaan ndax moom bés bi muy agsi Touba fekk na Poroxaan weesu na parce que moom la 6 la agsi bésu la 7 sax la agsi Touba ci suba gi donc Poroxaan la 5 la woon defe na donc moom ñu bari nee nañ dafa dem Poroxaan mais moom bi muy ñëw Poroxaan weesu na Poroxaan le 5 la woon moom le 7 la fi agsi ci guddi 6 au 7 ci la fi agsi am na ñuy wax tamit ne dafa génn këram dem siyaare ji walla dem kii ma leen di xamal ne kooku bi mu ñëwee génnul këram ñu doon ñaan ñi nga xam ne ñooy tukki te di ñëw fan yi ku ci ñëw rekk nga fexe ñëw hôpital ñu seet la ba pare jël sa contact pour fexe di la suivre ba fukki fan ak ñeent yi weesu ndax itam ñun ñi nekk ci hôpitaux yi amuñu moyen pour xam kan moo ñëw ak kañ la ñëw ak fu mu nekk ak fu mu dëkk loolu yéen yéen ñu ci mën a jàppale ndax su fekkee ne askan wi communauté bi dugalul loxoom ci loolu risque bi mooy képp koo xam ne da nga ñëw indaale feebar bi nekk ci biir askan wi te bañ a dem kër docteur ñu seet sa yaram di nga wàll ñi nga dëkkal te sooy wàll amaana say njaboot ngay njëkk wàll ba tax ñuy ñaan vraiment journaliste yi presse bi ñëpp jàpp ci ñu yee nit ñi ci loolu